la eh, alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant yàlla ci xéewal yu màgg yim ñu defal yoo xamante ne nii kenn mënu ko lim alhamdulilah tey yëg-yëg bu rëy am mooy liggéey bi nga xamante ne nii sama wayjur mi ngi ko doon liggéey ci kaw suuf mu nekk liggéey boo xamante ni da sos ci dëgg ci ragal yàlla ci ak jaamu yàlla yi ci laayante biir ak jaamu yàlla yi liggéey boobu tey dama yëg ne alhamdulillah mu ngi yokk bu baax a baax a baax mu ngi gën a taaru saa su mi ngi màgg saa su ne mu nekkoon alhamdulillah bis bi nga xamante ne nii mooy bisu rañaane bi muy kazu rajab ci weer wi nga xamante ne da doon Euh, da doon yokku jaamu yàlla yim doon def da doon yokku taar yi nga xamante ne nii moom la doon yëg ci digganteem ak ay njabootam da doon yokku mbégteem ngir sante bis bi borom bi subhaanahu wa taala bis bi nag bisu cant la bis la bu ñu bu muy sante boroomam la loolu la ko wootee dafa woote pour sant boroomam jaam bu nekk bu nekk nag borom bi bu la teralee sañ nga nga sant ko alhamdulillah loolu mooy woote bi ñu ngi siy sant bu baax a baax a baax. defee daanaka mooy ban waaw alhamdulilah loolu nag ci moom lañ ko jàngee moom góor gi ndaxte moom euh, dafa doon yaatal bu baax digganteem ak nit ñu baax ñi moom mbaax rek moo ko ñoroon euh, fum mu seen mbaax wala mu dégg ko fa rek dina góorlu ba egsi ci mbaax moomu moo tax moom amul woon xàjj ak seen ci kenn kum dégg ne ku baax nga dina fexe mu jegale jaxasoo ak yow. loolu nag bi mu demee ginnaawam yàlla daf ñu dimbali ñun itam mu yaroon ñu ci loolu ñuy wéyal loolu tey moo tax alhamdulilah bu weer wi teeroo dañuy bàyyi suñu soxla yëpp bàyyi suñu yitte yëpp euh, dox di dem ci jaamu yàlla yu baax yooyu di leen jege di waxtaan ak ñoom di leen woo itam ci bis bi nga xamante ni moom la góor gi doon woote. social également mu xam ne euh, da daan boole njaboot yoo euh, waaw waaw moom euh, dëgg-dëgg social dafa bokk ci li nga xamante ni moom moo mun nañu wax ne moo ko doon bégloo saa su ne saa yu defee acte social rek danga nga gis day bég bu doon teg togg ñam yu bari nit mbooloo mi bari lekk da ngay gis muy sant yàlla yow alhamdulilahi rabbil alamin kon euh, aspect boobu foofu moom point boobu dafa am solo ci liggéeyam moo tax njaboot gi comprendre loolu ñoom itam yàlla dimbali leen ñoom ñëpp ñu ñuy góorgóorlu ci euh, liggéey boobu ci social bi alhamdulilah woote bi tey ñëw dajaloot ngir sant yàlla ngir màggal li nga xamante ni moom la yàlla màggal mooy guddi gi nga xamante ni moom la rañaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa guddi gi nga xamante ni moom lañ wàccee julli juróom tey woote bi loolu la ngir jaami daje ngir sant yàlla. fan yi ñu gis ne coow li euh, gën a fës Sénégal muy mbirum borom ñaari tur yi euh, coow li ne kur tey bu fekkee ne yow am nga position famille Touré boo ne war ko joxe tey ban nga alhamdulilah loolu. Euh, li nga wax rek moom moo moo nekkoon rôle am xeexal diine fépp fu ñu laalee diine da ngay gis ne moom da ngay yëg ne laal nañ ko fépp bu ñu waxee fu ñu waxee jëf joo xamante nii bu ñaaw la da ngay gis ne moom day day am yëg-yëg boo xamante nii bu naqari la kon loolu euh, loolu suñ position ci loolu mooy moom lii ci position am rek mooy loolu daf ñu naqari euh, xam nañ ne loolu lu lu yàq société la kon ñun suñu xeex dafa bokk sax ci loolu lépp loo xam xamante day yàq day tasaare yàq ci kaw suuf loolu moom dañuy taxaw ngir di ko xeex mu jaral ñu lu nekk kon dañuy ñaan yàlla yàlla bu ngóor jigéen am doole ci ci fii ci Sénégal niñ ko amee ci yeneen réew yi ndaxte xam nañ ne day yàq société te yàlla ñu ci yàlla musal. waaw ñu ngi lancé euh, message bu am solo bu yaatu ci ndaw ñi. mooy message bi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lancé mooy moom dañ ko yónni ngir mu defar jikko yi te xam nañ ne jikko bu defaroo société day defaru nit day defaru te nit bu defaroo ñëpp dinañ jëriñu kon xam nañ ne ndaw ñi lu leen war rek mooy góorgóorlu ci jàng ak ut xam-xam ak jaamu yàlla ci tam ci nga mun a taxawee ba defar sa jikko kon loolu message bu foor la ñuy lancer dañuñ loolu sax dafa bokk ñun suñu komba mooy fexe ba tabax doomu aadama boo xamante ni bu mucc ci ayib la boo xamante ne nii fu mu taxaw dina mun a représenter doomu aadama yëpp fu mu taxaw dina mun a demee ci côté yëpp ci diineem dina ci am xam-xam mun ci jaamu yàlla ni mu ko ni ni ko lislaam euh, digalee mais itam ci àddinaam dina mun a liggéey moo tax ñu ubbi daara ji nga xamante ni ñu ngi ko dëppee institut alhaaji Boubacar Touré nga xamante ni daara ji day former ay ndaw jàngal leen alquran jàngal leen xam-xam mais jàngal leen francais alhamdulilah commencé nañ ci am ay résultats yu am solo xam naa da ngeen yéex a egsi mais alhamdulilah ñaari at la daara ji am am nañ ñu mokkal alquran am nañ ñoo xamante ni ñu def CM2 ki doon tari tey CM2 lay def am nañ keneen koo xamante ni mokkal na moom itam mi ngi classe CM2 dañuy def examen. loolu fierté la boo xamante ni dama ko am suma xoolee sama liggéey wayjur nga xamante ni yitteem yëpp moo nekkoon taxawal alquran samp daara alquran yi euh, dundal taalibe yi dimbali leen ba ñu jàng fexe ba ñu nekk ci jàmm kon fierté boobu la njaboot gi am tey ba li yëpp ngeen gis ñoom la njaboot gi taxawaay bu am solo lañ am ci bis bi kon loolu dañ koy sante yàlla di ci bég moo tax ñu woo suñuy mbokk woo suñuy am di jàmm woo suñuy xarit woo képp koo xamante ni sopp nga ñu nga ñëw xool liggéey bi nga xamante ne nii moom la suñu jur bu tedd bi doon liggéey ci kaw suuf liggéey bi ëpp naa suul ëpp naa denc liggéey bii dañ ko war a génnee ñëpp jëriñoo ko loolu mooy mbégte bi ma am tey di sant yàlla bu baax di sant ñi nga xamante ni teew nañ ñëw taaral bis bi aw ma benn kàddu bu ma leen jox lu dul di sant yàlla. salaamaaleykum nga nekk jàngalekat ñëpp xam ne say taalibe daanaka kenn du leen gis ci mbedd. Mhm. ak yu euh, tey ñu nekk ci jafe-jafe mbirum njàng moom nga wax enseignants yi ci diggante ak état bi euh, li may message boobu may lancé mooy message su jàngalekat xam nga boo nekkee jàngalekat dangaa taxaw pour xettali doomu aadama yi kon doo jiital sa intérêt donte ne na sax dañ laa tooñ war nga góorgóorlu ndaxte grève bi gis nañ ne yàgg na. yàgg na kon bépp parent d'élève am na ci lu ko metti kon jàngalkat yi lañ gën a yolomal buum bi loolu laa leen di wax buñ topp état ci xëccoo boobu noonu ndaxte bu mettee ci ci ci parent d'élève yi lañ metti ak élèves yi kon maa ngi leen di woo ñu yolomal ñu wolomal li nga xamante ni am nañ ko ci revendication yi ñu amoon loolu itam ñu téye ko ñu xaar leneen wala ñu sàkku leneen mais ñu fexe dellu si classe yi loolu laal leen di ñaan maa ngi leen koy ñaan ci jëmmi alquran maa ngi leen koy ñaan ci bis ci jëmm ci barke bis bi nga xamante ne nii tey parents d'élèves yëpp soxla nañ loolu yàlla nañu yàlla defal jàmm. question bu mujj bi waaw alhamdulilah autorité locale yi fi nekk ñu ngi am ak ñoom relation bu baax maire bi fi ne dama koy remercier ndaxte ku baax la ku disponible la ku am ku am am nañ ak moom relation yu am solo ndaxte directeur cabinet la ma booleel kooku tey alhamdulilah mi ngi ma jege di ma jàppale ci bis bi waaw kon foofu lañ yemagum ndaxte bis bi nag soxsuñ ko ngir ngir état dugal ci loxo wala bañ cee dugal loxo góor gi dafa samp dëgër loo xamante ne nii ku am nañ yaakaar ci loolu mooy sukkandiku ci yàlla ak doylu sa bopp ci loolu lañ def loo gis mu taaru fii loo gis mu taaru fii am di jàmm yi la loo gis mu taaru fii njabootam la moom ñi nga xamante ni mooy njabootu meenam ak deretam ak ay njaboot yoo xam ne moo leen yar loolu moo taaral bis bi tey kon alhamdulilah ñu ngi ciy sant bu baax a baax